waaye buggoon naa xam ci ay combat su ma la proposé woon combat yi. di ma wax combat bu nekk nu muy demee. incha allah rabi si kàttan suñu borom waaw loolu moom yëg-yëg la rek yëg-yëg la ak sañ-sañ ku la ëpp sañ ëpp la yëg-yëg. xam nga xam nga tey li Sénégal li sénégalais yi euh, mën a jaxase seen xel. Mhm. du comme sañ Bas mi ma ni ko euh, nu mu tuddati jam téeri ak ak ak bërki démb ki bëree sëñ la jan téere ak jatli mm-hmm. sëñ bas kuy daan mm-hmm. mu ne ma jam téere day daan jatli mm-hmm. xam nga loolu tey euh, du du loo xamante ni sénégalais yi mën nañu du baaraam ndax jàpp naa ni loolu ku ne mën na waaye jam ak jatli sëñ bas kuy daan mu ne ma jam téere da koy daan waaye day mujjee wër ndomba jatli ba daan ko ci sénégalais yi yaakaar naa loolu la ñu bëgg waaw waaw loolu mën na ne loolu mun na nekk loolu sañ-sañ moo koy def ak baatin ku amul sañ-sañ wala amoo baatin wala ngay laamatu ñi ma wax leen yow la nga ji risque si leen yi parce que fii Sénégal la loo am xam-xam am xam-xam ak lu yàlla may yàlla may am nañu la sut fop ba pare toog na te ñuy yàq ñëpp ñuy defar te danga gis ñu wax lu leer lu wér lu dara lu dindi dem ba foofu ñu ne dañ koo dëpp ay caaxaan la rek dëpp amul ay caaxaan la dëpp ay mbiru caaxaan la kenn mënul dëpp say say déedéet nga teelu wér teelu wóor def si li nga fa def yëpp ñëw nga dañ ko dëpp xaaral doon nalaw xaaral doon nalaw teelu wér teelu wóor ne sa mbër demal dafa sarax bi sangoo lii defal lii sangoo lii hmm. dem ba si bis ba ñu daan ko nga ne ko dañ ko dëpp loolu du lay loolu ay caaxaan rek ku yor wér yor lu wér yor baatin boo nee lii rek lu métti métti met métti loolu lay doon hmm. ak lu métti met métti loolu lay doon dañ koo dëpp mu ne mbër bu ma mës a ngeem Sèmba kontaan na. bëggoon xam nga Angleterre bi nekk écurie Dóor Dóoraat xam nga ko. Angleterre bi nekk écurie Dóor Dóoraat. te xaw ma ko. Euh, Majji Majji xamoo ko. Majji Majji xaw ma leen ñooñu xaw ma leen. Euh, nu mu tuddati Franc xam nga ko. Franc xam naa ko. Bébé Saloum xam nga ko. Bébé xam naa ko. Majji Majji Angleterre ñooy bëre le 7 mars. Mhm. Ousin production moo ko tëgg. arène nationale. jam production moo tëgg diggante euh, franc ak bébé Saloum. combat yooyu léegi ñu njëkkee kon comme xamoo ñee léegi ñu njëkkee ci franc ak bébé Saloum làmb jooju mën nga maa wax nu muy demee. waaw làmb jooju suñu borom wan ñu ko si am ndam ba pare diggante bébé Saloum ak franc yàlla wan nañu ko ci am ndam. lu mu métti métti métti ak lu mu jafe-jafe te combat boobu nekkul combat bu jafe wala combat bu mm. waaw. Franc Tiñe daan Bébé Saloum ci lu yomb nag ci gaaw ci lu yomb ci lu gaaw xeex yaakaaroo mu am si. yaakaaroo ni xeex dina ci am. déedéet. da koy daan jël bu gaaw. bu gaaw jàpp daan ñaata minute. du diire su ma tee une minute ci lay yem amaana sax ni koo bañ a mat combat boobu su ma tee une minute waaw yaakaar naa ko nag. waaw yaakaar naa ko de waaw combat boobu dina gaaw nag franc Peko Saloum dina gaaw yàlla dina jox ndam franc bu soobee yàlla loolu moom waaw loolu amul sax ma dem sa ñëw. wax nu koy daane. dina ko daan jël bu doy waar nag te jël si dugg si ba mu xóot mais dina ko daan jël bu ñëpp jéem parce que nag Bébé Saloum du mbër bu ndaw. Hmm. boo xool Bébé Saloum xam ne ndaanaan la franc day bokk si mbër yi dégg. loolu moom kenn mu ci dara. da koy ñaanal. Franc du ma ko ñaanal waaye fóonoo nañu defandoo nañu lu baree bari maag moom te day bokk si mbër ñuy parce que ku am ñaan la te ku am ginnaaw la mbër lu ma ngay dégg fi gën mbër bu ndaw la hmm. waaw xam bu ndaw la te mbër ma kenn ëpp ko si ginaaw kenn ëpp ko si ñaan dañuy daan beew Saloum jël bu rëy. kon ñu jubali ci bis bi nga xamante ni mooy sëñ bas bis bu mag bi buñ nee la 5 avril dañuy xam ni bis bu rëy la te ki ko tëgg di njiital Paf production muy Pape Abdou Fall dox ci diggante Siteu ak Papa Sow combat boobu tamit am na loo ci xam. nga diggante Siteu ak Papa Sow le 5 avril bis bu neex la bis bu neex lay doon bis bu rëy lay doon. laa ma jooju dina am. incha allah rabi ko bëri si jàmm ak salaam ko bëri si jàmm ak salaam. mënut a ñàkk bañ a am combat woowu dina am combat bu rëy lay nekk combat bu neex lay nekk bis bu mag lay nekk ñoom ñaar ñëpp defe lañ jógee te ku ne am na nooy ñëwee ku ne am na nooy waajalee te surprise daal dina si am xam naa ne ci combat boobu. surprise mooy lan. ñëpp foog ne mooy daan du daan. Ah, ah ah man de loolu jaaxal naa ki ñëpp foog ne mooy daan. du daan combat boobu kan la ñëpp yaakaar ni mooy daan. waaw parce que tey boo déggee commentaire nit ñi ak nit ñi waxee si combat bu ñëpp mooy. Papa Sow moo ëpp doole moom lañ jox favori moom jox favori ñëpp. te ko dégg sax si mooy Papa Sow day ko daan de Siteu dina daan Papa Sow. nag à tout moment mën a jeexee kaaw. doomu daanu mën na jeexee. waaw waaw nañ ko bàyyi xel de mën na sa am de jeexee kaaw de combat boobu de à tout moment. du nekk na combat bu gaaw. sëñ bi li ngay wax ni da ko gis wala da ngay toog di ko analyser. waaw loolu comme comme tey ma dem ci sama papa Asbekaay Mbaye dégg ko micro mu may analyser ci combat wala sama papa Alaaji Papa Dieng. waaw ñun waxee si ay jotaay wala ay caaxaan. Mm-hmm. lépp lu ñuy wax day nekk lu wér lu wóor parce que àdduna moo ñu seetaan parce que Wassare Lamb nekkatul site bu ndaw. Mm-hmm. site bu mag boo xam àdduna bi yëpp koy seetaan kon lépp lu ñuy wax. bu ñu ko waxee suñ naf si bakkan dañ koy teg fu wér teg ko si baatin bu leer nañ boo xam te ni bu ko ñi gisee loolu am ñëpp xam fii caaxaan ne fi te nag fii caaxaan ne fi nag fii caaxaan ne fi loolu ñu lay wax lu wér la nekk lu ñuy analyser nii rek lu ñuy teg ba caaxaan la ñu suñu borom wan la te njot na ni jàpp nañu loolu ma am dara du ko dindi waaw jàpp nañu loolu may am dara du ko dindi mooy Siteu jeexital Papa Sow te mën na jeexal kaw nag. maanaam bu dee Siteu dina daan Papa mooy Siteu mën day kaaw Papa Sow ndax euh, Siteu dina daan Papa Sow mën na jeexee kaaw mooy Siteu day kaaw Papa Sow. waaw ah, combat bi daal du nekk combat bu gaaw combat bu bari ñaan lay doon nag combat bu bëri mystique lay doon bu doy waar sax si ñaan. ñoom ñaari mbër si ñoom ñaari mbër yëpp. si ñoom ñaari mbër yëpp wan fi ñu toll nii lamb yooyu moom pare na moom. voilà kulli yàlla Cité dina ko daan déedéet dina dira tuuti mais ala kulli yàlla moom. dina def def ay à peu près. mën na def ay cinq rek mais yaakaar moom paas ko nag. Hmm. waaw ci lay yam mu dee cinq minutes ba quatre minutes ci lay yam le 5 avril combat bi dure cinq minutes affaire la. waaw ba pare Cité daal lañ ko bàyyi xel. Hmm. waaw. roi des arènes bi ñu jàpp ne bu fi Modou Lo jugee comme nee nga du fi jugee euh, dina dina xaw a dina toog ci roi des arènes bi dina ci def ay fan. Mhm. léegi maanaam bu ci jugee kan nga jàpp ne moo ciy toog. waaw parce que Modou Lo roi des arènes moom lu mu gàtt gàtt gàtt dina si am ndam moom xaw ma ne kan la feeg Modou mi ngi nekk mhm. ndam bu dee Ama ak ku mu da si am ndam ndax nag. àdduna dafa day waar mhm. te Modou ku galéré la si làmb ku sonn la si làmb ba yàlla fekk si ko tey jox ko waaye ak bis bi mu ko joxee ak anam bu mu ko amee mhm. ak jële bu mu daan woon ak ba mu ñëwaatee lu ko yàlla yàlla du def dara si yàlla lu mu def rek am na lu tax mu def ko ñun ay doom Parcelles lan fa lañ juddoo fa lañ màggee fa lañ yaroo lépp lu ñu am Parcelles lañ ko amee ba yàlla def tey ñëw ma la ko am suñu fu bopp loolu sant suñu boroom la ndax nit ki mënoo yor benn affaire di ko ko mm. ne yàlla maywul loolu tey da fi yor ay fan sa morom jóge fi yor ay fan wante mm. futur Wally mi ngi si ñaari mbër Balla Gaye numéro 2 Lac de Guiers bi <laughs> mi ngi si ñaar ñooñu kon de Balla Gaye 2 mooy doy doon roi des arènes boobu loolu ku ko yeewoon xaaju guddi wax ko ko sax mun na la bettu ma xamoon naa ko Euh, roi des arènes moom futur roi des arènes mi ngi si ñaar ñooñu mi ngi si la de Guiers numéro 2 Lac de Guiers 2 lu mu am ci àdduna doon roi des arènes ko ku gënal ak Balla Gaye numéro si ñoom ñaar ñooñu daal le roi bi nekk te yàlla bu defee si ñoom koo si jël hmm. ah koo jëlee waa si loxoom du yomb de ñaar ñooñu. ci jël dina ko téye. ah koo si ko téye. sëñ bi sëñ bi kan moo fi ëpp mystique ci mbër yi nga jàpp ni kan nga fi jàpp ni moom am na mystique moom ba nga xam ne kii am na mystique. Modou Lo. Lac de Guiers numéro 2. waaw am na ngëm. <laughs> Lac de Guiers numéro 2 bokk na si mbër yu ëpp si làmb ji Lac de Guiers si mbër ñu ne dañu jaawla ñaan ay biréel yu bari ay taxaw yu bari déedéet loolu ñaan. mbër li koy jox ndam du ñëw esaat mbër li koy jox ndam ñu toog seen kër yor kurus mm-hmm. ñi di liggéey leen ñi di liggéey leen ku ne loolooy tax mbër di am ndam ak sarax yi ngay génnee mm-hmm. ñetti mbuusu ndox tax na mbër am ndam. ñetti mbuusu ndox yow nga sarax ay nag ay gëléem ay xar nag ne ñetti mbuusu ndox képp xam heure bi nga koy génnee xam ki ma koy jox. ar bi ne nga génne ñaari guro yu weex képp xam ki nga koy jox. est-ce que xam am na mbër yoom te ñi seen gémb laa suuf yombul te ñi boor ba ñooy bi amul ku ñu daan ndax da la fekk du ñoom am ay jinne la indi si làmb ji da ngay foog ne ñoom ay jinne ngay bëreel am na mbër bu ma boo xamante ni moom mbër mu mag la ci mbëri ñu ne bu daan ñëw day indi day ànd ak jinne ba ci biir làmb ji lu am la lu wér la mais jinne dafa am ñu ko tuddee si biir làmb man mbër bu ànd ak jinne kookoo gën a neex daan mbër moom day ñëw jinne di indi stade dina ay jinne kooku moo gën a neex daan parce que lu koy tojal lu yomb lay doon lu yomb parce que jinne nag am na lu mu ragal jinne ñëwul doomu aadama ñun yàlla nu fee wàcce pour ñuy jaamu pour ñu koy jaamu mais jinne ñun pour ñun la ñu ñoon di diriger dafa ñuy dara ñu fay jaar te lat ni 2 Modou Lo ak Siteu jàpp naa ne bokk na si ñu fi ëpp ñaan. am na gàllaaj waaw am na ñaan Siteu bu baax sax Siteu am na ñaan bu baax a baax a baax a baax a baax ñaan dafa doy waar ku nekk ni ngay ñaanee. Mm-hmm. ku nekk fi ngay jaar si ñaan. am ñoo xam ne lu ñu rek mooy ñaan am ñoo xam ne pour ñoom alxuraan ne alxuraan loo si amul doo mm-hmm. loo amul si turu suñu borom mun na koo am si leneen wante Balla Gaye numéro 2 dañ mm-hmm. ko bàyyi xel de. dina yóbbu làmb faneen am na ñoo xam sax man baa du sa mbër. mos ngeen a gisee. mos ñoo gisee ku ne am na ku ne sa xol. nit ku ne am na koo faral loolu yaa suñu borom moo ko def. am na bu ma déggee may wax di ngeen xam man ci ma faral ak kuy sama mbër wante Balla du sa mbër. man de su ma sëñ Bas ci wax ji mën naa la sëñ bi kii mooy sa <laughs> waaw mën na nekk wante man Balla nekkul sama mbër. wante Balla dina yóbbu làmb faneen li tax làmb di avance la li tax ñu déggaat làmb faneen si Balla Gaye lay jógee. làmb dina nekkaat mu nekkoon. bu soob suñu borom loolu moom falaa buddil sax day nekkaat. si loxo yi Balla Gaye lay jaaraat <laughs> pour làmb neexat laa wax. ñëpp dégg fu làmb nekkoon si Balla Gaye numéro 2 lay jaar. góor bu bàccali waaw si moom lay jaar parce que Balla nag lu ko waaye bañ bañ bañ bañ xam ne daanaan la. lu ko waaye bañ bañ ban nangul ko yàlla di ko yàlla defal am na ñoom jagle suñu borom la te làmb ji bokk suñu fu mën bokk na suñu fu mën parce que ku daan Modou Lo ñaar yoon daan Yékini daan Taze daan Balla Gaye ah kooku ndaanaan nga de loolu waaye bañ bañ bañ xam ne ndaanaan waaw wante nag li si kanam raw li parce que làmb dafa bëri coow am ñoom nga gis seen fugu nii duñ am ñoom jaru ko. ñu laamu coow fii ñu yor garage saaga fii xëppante fii mu njariñ mais sëñ sëñ bi est-ce que lii nga wax tey bu ko wasaara làmb dugaloon euh, yenn ñenn ñi ànd ak yenn mbër yi bëgg bëgg la est-ce que doo ci doo ci am benn problème non non non du ma si am benn problème parce que man li laa ko xam ne ñëpp ma xam ñu ma xamul bariwul loolu suñu borom defal na ma ko nit ñi suma ay nit lan suma ay xet lañu am na moom yàlla suñu borom moo ko def nit ku ne da nga yor sa gis-gis mhm. te ni ku ne am nga sañ-sañ wax li nga gis fii dëkku teraanga la Sénégal la nekk lu ñaaw xaju fi mais ñaata nit ñoo fi mës a wax diwlee daan diwlee daan njëkkee ma ko tudd ko fi mujjee loolu si àdduna nga ko fekk ak sport lu jaay mu la. des fois ku ko def ñu ne daa bëgg buzz est que du du du da ngay da ñëw pour wut buzz. man nag yàlla sutura dama soxlatuma buzz mhm. ndax jàpp na ne buzz bi tax nit di ko wut mais pour teraanga. pour alal pour loo suturloo suñu borom def na ma yëpp maa ngi fay samay soxla maa nga lekk ba suur maa nga naan bu mali maa samay doom zéro su may rax zéro su yaay kon aw ma dara lu may soxlaati te lu waaye am si ñaan rek am naa la ko si ñaan <laughs> lu waaye di ñaan ba am ko ñaan naa ko ba ñu ko defal ma ko jërë ngeen jëf mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen làmb xew-xewu làmb jërë ngeen jëf. jërëjëf kilifa dégg naa. amiin amiin yàlla yombal